Assalamualaikum, maa ngi nuyu monde entier ma ngi tudd nag Bayla dëkk Pikine khurunar du nuyu sama am di jam yep, du nuyu ñëpp monde entier nak di wote nak ndaje bo xam ni muy groupe Ramadan social tey jii moom lañ bëgg waxtaanee tey lu fi indi wax ñun fu jëm ak fu wara war a mën a mën a bëgg bëgg yegg waaw. léegi euh, Baye euh, social. boo ko déggee mu lu tax ñu créé ko muy suñu chanteur muy Waly Seck Waly Seck moo tax ñu créé Ramadan social waaw Ramadan social parce que ñun yàlla dimbale nañu ci social la ñuy dund ci social lañu xam suñu lépp social la waaw Waly dama ko xam démb xam ko tey. waaw ba ma koy xam nag ñu bari egg si ñu woon si ñoom may gis muy dund dund social boobu noonu ma créé lu lu ñuy wax ramadan sociale waaw ramadan sociale yàlla dimbal nañu nag ñu ngi doog a génn nag ci télé nag waaye ñun yàgg nañu dox ci xale yoo xam ne ay fàqmaan lañu defar leen ñu dellawaat leen seen waajur ñu ngi dox si ñoo xam ne dañoo feebar amuñu doole ñu ngi koy dox ñoo xam ne tamit seen xel neexul ñu ngi leen di sang di leen defar bu dee jigéen la soxna yi téye leen sang leen solo leen ay yére yaa ngi dégg ba dellowaat leen bu dee cent pour cent daal ñun ñu ngi ciy def cinquante pour cent yi waaw waaw. waaw fond moom amaguñ ko parce que suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm yi nañuy dajale ak suñu nit ñu baax. ñun daal noonu lañuy def ñun daal loolu la ñuy def quoi bu koor ñëwee ñu dajale suñu dërëm suñu ñaar dërëm togg suñu ay mbana yaa ngi dégg jox jaam jox suñu mbokk jullit yeeg mbokk chrétien ñëpp ndogu ci si loolu. waaw loolu noonu am na ko yore loolu ku ñu wax Sonia xam naa après dina si sànni kaddu amna ko xamni instant dañ ko enterrer hôpital mu ngi hôpital fim nek ni Sonia après na envoyer numéro waaw numéro bobu mom inshallah dina ci am lu mu si yaatal quoi waaw. sama dernier mom mom moy groupe bi muy ramdan social du ramdan Ramadan social dafa am fu mu ne Ramadan social yalla rek mom mo tax ñu ci def pour jaamu ci yalla deug la tamit ki nak ki tax ñukoy def muy wali sek tuddee boppam ramadan social kooku moo waral tamit ñun fii ñu ko fi nekk ñëpp dañ koo bëgg moo waral fans club boobu ñëw ñu jëlaat fans club bi ajaati ramadan social bi ñu teg si social bi ndax social boobu noonu si lépp nag ñoo ngi koy dox ñu ngi tey ji ñu ngi si armée yi ñu ngi si maladie ñu ngi si ñoo xam ni ay ay xale yoo xam ni ay xale quatorze ans dix ans yoo xam ne dañuy génn seen kër ñun ñu ngi seen ginnaaw ak ñoo xam ne wéruñu ñoo xam ne tamit dañoo ànd ànd ñu seen xel ñun tamit ñu ngi si di leen dooleel di leen jàppale. ram loolu mooy ramadan social ramadan social boo gisee mooy nii ëpp nañ nii nag am na ñoo xam ne am na ñu ngi Kaffrine am na ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi Mbour am na ñoo xam ne ñu ngi Tëngéej dañoo dañoo sori. Euh, waaw avant nga tëj mm-hmm. bëgg mm-hmm. nag toogaguñ. mais xam na ni man damay dund yàgg naa ko wax nag quoi mais comme groupe bi toogul ak waa groupe bi te incha allah loolu dina am. waa xam nga lan moo tax expliqué gu ma ko nag mais xam lu tax waali ba ma koy xam ñaa fa la ma fekk muy tapis vert Abba non SRS fa la ma fekk Aïda Diallo bi ngeen dégg fa la ma fekk Guinée fa la ma fekk euh, waa ji nu mu tudd si waay den jeego tapis vert fa lañ ma fekk may gis Wally di dund social am te boobu noonu demul woon nii man tabaski maa koy defaral ay xaram gis naa mu jël xar xaram bu gën a mag si xaram yi rey ko mu ne ma balaa demal nga génne nga jox maire yi nekk si biti yoo xam ne nit xamagu ko loo xam ne télé feeñul dara feeñul Wally def na ko si suuf gis naa tamit Wally ñu génnee nit si këram yi jël xaalisam ay millions fayal kooku jibi ama bi tëdd fii waale yëkkati na millions yi man la ko teg sama loxo maa ko ko jox kon loolu noonu mu ngi koy def sans ngir sa te waale tegu fi tànkam loolu ñun ñooy jug wax ko ñun ñun ñi déggu ko mais du ngisal quoi. maa ngi lay fay. man maa ngi tudd Adja Ngone Mbaye. Adja Ngone Mbaye. Euh, lan ngeen mën a wax Ramadan social. en fait euh, Ramadan social. Bayla sa moy suñu président mom mo créé groupe bi woñu ci ñun ñi ñëpp te ramadan social aussi ñu ni ëpp nañ ñi aussi mais tay limu mu la rek ak li ñu ñi nga xamanteni ci si jot gi may na leen ko ñu ñëw mais dañu def ramadan social so gisé lu tax ñu woté ramadan social social mo tax ñu woté ko xam nga nit ñi ñi ngi wax ramadan lenen ramadan lenen ramadan lenen, mais ñun dañu woté ramadan social parce que dañoo woote social di ci woo ñëpp social bi ñuy def nag ñu ko ci suñu fans ki nga xamante ne si moom limu tax ñu créé lii muy Wally Balago sek gis ci moom social moo tax ñun aussi ñun tamit ñu def suñu groupe doon doon ramadan social. wa part à biñ ci am bëgg dimbali nit ñi parce que doole te ni ñu toll ni macha allah bu ñu jàppoowee takkoo tàllal loxo ñeneen ñi aussi dinañ nañ dimbali ñu bëri parce que loolu rek lañ ci yëg yëg pour ñi rek lañ am mm. am ku leen mm. Sénégal yaakaar ni mm. ñu gis ñu gis leer ñu ñu ñu ñu waaw ñun ñi ngi def ñi ngi liggéey booba ba tey daan sociale bi ñu ko ibbee yàgg na mais ñun lo ndimbal da ciy jiitu loxol boroom ñun suñ loxo mi ngi ci biir parce que lu mu dee dee bu weer bi deewee ñun ñu fi toog ñëpp ku ci nekk di nga cotiser ci loolu noonu ñu jot am nag ñu ngi ciy dimbali li li nga xamante ne si ñun moom lañ tollool parce que ñu ngi ciy faj nit ñi feebar ñu ngi ciy jël ñi nga xamante ne si seen yaram neexul di leen ci jàppale di leen ci jëndal ay ay yére di leen ci jëndal ay omo eau de di leen ci sang di leen jàppale te yàlla rek tax bien vrai que amuñu doole mais ci li ñu tollool ñu ngi koy def te nag bëgg nañ nit ñi jàpp ci mu gën a jëm kanam. waaw euh, ñun suñu base euh, fii nii la Pikine Kër Baye Laa Sarr numéro kees bi moom moo nekk 78 348 88 98 loolu mooy numéro kees bi. waaw sama dernier kàddu mooy Ramadan social mu ngi woo képp koo xamante ne sii rek yaa ngi béggee waale ak ku ko dul bëggee aussi ndax nit ku nekk am nga ku la bëgg am nga ko la bañ mais social bi ñu woote rek képp koo xamante ne si sa loxo jot na sa ginnaaw ñu ngi lay tàllal loxo bëgg nga jàppale ñu dimbali ñu ñu mën a dimbali ñi nga xamante ni si seeni xel neexul ak dañoo am wéradi ñu ngi tàllal ñëpp loxo. ñoom ñoo ma ko joxee ku ñu ku jàppale ko ku ñu bëgg a jàppale te yàlla rek tax te xooloo ci dara mën nga ñu jàppale ci 78 348 88 98. te ak ku leen bëgg ak ku leen war ku ñu war a dimbali rek mën nga ñu koo dimbalee ci numéro boobu. ok merci beaucoup. maa ngi lay. fay. maa ngi tudd Sonia secretaire eh, secrétaire général. nguuram Ramdan. ñu bëgg ramadan social bi nga mu ngi ko si suñ président Bayla Sarr moo créé groupe bi et ya, ensuite li tax mu sosial ko mooy buñ ne social c'est tout parce que Wally Seck moo ñun ñëpp ñu nekk fii si biir groupe bi loolu la. Eh, tax ak nit ñi dimbale nit ñi. waaw loolu moo tax. Euh, ni que waa ñun ñëpp dañoo engagé wu euh, créé nañ tamit euh, nekk nañ si biir groupe bi def benn kees kees bi dañuy cotiser ak tamit bu ñu nekkee ne ñu ngi si weeru koor yooyu noonu yëpp dañuy engagé wu ñun ñëpp ñu booloo doon benn jàppale nit ñi te yàlla rek tax. non amagul fonds actuellement ni mais. ñu ngi si ñu ngi si daal waaw ñu ngi si non du question joxaguñ ñu fond sax du question joxaguñ ñu fond mais loo gis rek ndànk-ndànk la waaw léegi ak lan nga a wax xam ne wa li leen di wax rek moy manam nañ ñëw rek ñu jàppale ñu te yalla rek tax parce que dañ ñu ramdan social te ku dégg ramdan social social mo ñu taxaju ñun ñëpp wa ñu and doon ben liggéey jàppale nit ñi néew di doole yek ñu nekk ci daara yek wéru kol bu joté ñuy jox nit ñi nekk ci mbéddi ay ndogu ndax ñëpp ñëpp ñëpp seen loxo jotu seen ginnaw ndax yalla nu bindé juroomi juróomi baaraam yi te yemalewu leen non la bindé doomi aadama yi te yemalewu leen kon motax euh nañ jappalanté rek yalla baxna ok merci. maaleykum salaam doom nday ñu ngi lay ziar bu wér. sant yàlla bu wér waay. Mhm. waaw ramadan social ay xale lay yoo xam ne ñoo am engagement lañ di xàccendoo dóorandoo xelaatandoo sotteendoo bëgg rek ramadan social jëm kanam ñu nekk nag ay xale yoo am ambition xale yoo xam ne dañu gëm li ñuy def ndax association yi bëri na mais bi moom dafa yitteel gaañu ñi yëpp parce que rendement social pour social la rek mun nañ ne waaw ñu duppee ko Wally Seck kon bëgg nañ daal képp koo xam ne doomu pikin nga wala boog nga génn Pikine diaspora bi ak fu mu mën di doon rek nga jàpp ci ramadan social Uh, mm-hmm. ok ku bëgg bokk ci ramdan social da ngay jël numéro bamba bi mi ngi ni 77 838 27 37 838 27 37. koku waaw numéro bobu mu ngay woté Bamba dina la expliquer ni ngay duggé ci groupe bi. Uh, sama dernier mot moy sante gañ yi nga xamné dañu teew fi rek. waaw di conseiller di conseiller ñëpp ñu jàpp bañ a bàyyi parce que affaire bi nag lu ñu yiteel la ay magum jëmu suñu jógee rek am na lu leen yitteel bu leen yitteelul duñ déplacé wu kon mbir mi lu ñu yiteel la di woo nag képp koo xam ne rek autorité nga foo mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi la ciy woo parce que lii nag affaire la boo xam ne ay xale ñoo ko sos mais affaire bu am doole la affaire bu yiteel askan wi la parce que fi mu jëm la lépp luy social rek ñun ñu ngi ciy yëngu ok merci beaucoup.